ila yawmi diini rabbil alamin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp tàmbalee nuyu bi ak siyaare bi ci saaxibul fadila wal xalifa al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu di nuyu njabootu Sëriñ Tuubaa gépp waaye di nuyu atub su'aalun wa jawaab asamadiya tàmbalee nuyoo beeg siyaare bi ci Cheikh Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh Souhaïbou Mbacke di ko nuyu di nuyu waa at bépp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñiy déglu laaj yi ngir bëgg cee jariñ ak ñi koy tasaare ñépp di nuyu bokk yi nga xam ne naka jekk seen itteeg seen xalaat ak seen yéene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg a bokk ci liggéeyal cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gi ak yeneen wàll di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bii nga xam ne mi ngi jóge ci a cheikh abdou samad ayyadahu llah wa nasara te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne bay jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaya seen suñu suñu question sociale te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mën a doon ñu ngi nuyu sëriñ Sàmb mi nga xam ne mooy taxawe liggéey bi technicien yi mu ko seqal waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci mawridu zamaan fi ulumil Qur'an di nuy sëñ Moustapha Diané di ko siyaare bu baax ak sëñ Cheikh waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yëpp xarit bu nekk nag njaañog njaga ñu naan ko Mourtala Guèye maa ngi koy siyaare bu baax ak bokki njaañ yëpp seen bokk seen xarit Mokhtar Kébem Cheikh Saliou Mbacké moo ñëw tey incha allah bi bëgg a ubbi jataay bi ci ay laaj ak i tontu te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam te mooy sëy sëy nag buñ ko waxee mooy dencante dencante nag ci lañ bëgg a ñëw incha allah rabbi ci romb bu gàtt te daal ñëw ci laaj yi ak tontu yi sëy moomu nag moom lañ bëgg a waxtaanee te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo société boo xam ne ay doomam dañuy set wecc xamante kenn ku nekk xam kii sa baay ak sa maam ak sa yaay te bañ a mel ni mala yi mala yi dañuy juróonte waaye amuñu tasalsul jokkoowuñu ci càll la fas wi ak wële nag wële ak wee boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee dootoo xamati nu mu tëdd ca mbokk ga mboolem lii mala loolu moo wér ci ñoom moo tax ñoom amuñu àtte ñun ñu amub àtte nag dañoo tënk ci kii sa baay nga xam ne mooy sa baay kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay ñaar ñi jege ba mu ëpp bañ a bañ bañ a dencante jege yi bari lool ak xaramante ñi araamante ñëpp bañ a dencante ñi nga xam ne kenn ku nekk lew nga sa moroom bu sart yamatee ñu dencante kon loolu daa ñëw ngir réglementer àdduna société bii di boobu lislaam nag xiir ci lool loolu nag buñ ci bëggee waxtaan islaam soññe ci sunna wax ci lu baree bari ahadis yu baree bari rot ci ci mooy sëy li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alxuraan tëkku wax ci lu baree baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu baree bari kon day mel ne càllale gi jóge woon ci aadama kenn ku nekk di xam ku la jur bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wut te sëy ñoom ñoo dagg bu mu googee fa ñoom kon def nañ lu rëy moo tax njaaloo rëy fekk lu ñëpp respecté bàyyi ko fa ñaar ña njaaloo ñëw jël loola ñëpp nan e ñii lu ñu def loolu moo waral doom ja toppi ndey ja te du mën a toppi baay ba ndax buñ topp bu toppee baay ba rekk càllal ak lislaam gi day am rax kon nag ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo nekk asamat yéen ñëpp tey déglu ñu dugg ak yéen ci diggante laaj ak tontu xam naa tàmbali sëy la ci nekk ci maye ga kañ lay dagan bu sart ya matee ci kañ yi takk ak a koy takk bu sart barab bañ toog di maye muy pas-pas ba ak kilifteef ga ak can ga ak seere ya ñeent yooyu ci la ab sëy di taxawee am na ci yoo xam ne nag mënees na koo xaare ginnaaw bu ñu fasee sëy ba waaye am na ci yoo xam ne moom soo ko xaare day ànd ak sëy ba yi nga xam ne day ànd ak sëy ba mooy kilifteef mënta ñàkk ci sëy bala koo takk kon moom boobu moom moom mënta ñàkk ab sëy bu amut kilifa kenn du kilifaam boobu sëy du wér kenn ga nag mënees na koo muñandiku jigéen ja di ko topp góor ga ba ca miraas ma ñu génnee ko ca tulus ba muy un ba seere ya mën nañoo maye tey fekk rekk ñaari way dence ni tey duñ sañ a fanaan li fekk amuñu ñu ko seere kon seere yi mën naa muñandiku kon can ga ak seere ya mën naa muñandiku waaye nag kilifteef ga du mën a muñandiku denc moomu nag di sëy suñ boroom xeemeem loo ko ñu baax ña boo demee ci boroom xam-xam yi ñu wax ci lu yaatoo yaato yaatu ci diggante darajey ki am soxna ak ki amul soxna ni muy wóotee fii nu ko raw ko raw lay wóotee àllaaxira ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxoon ak kër rit te ñëpp topp ko moom dong moo fay nekk waaye ki am soxna moom bu mu doon defar këram mu rafet itam te am soxna ami doom moom dong du fa nekk yow mal xiyaam am soxna noonu lay amee doole ca kanamu ña nga xam ne amuñu soxna moo tax borom xam-xam ne Seydina Iisaa ibnu sax bala àdduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nekk mutaahil muy ko am soxna loolu lépp rek rëyuk rëyal lislaam ak rëyal soxna ak njaboot ci lislaam loolu lay tegtalee ndax mboolem liñ fiy dox di ko sàkku ci ñaq di sonn nit ku nekk sonnaloo sa bopp ginnaaw yàlla sa njaboot ngay sonnal ka ca jiitu mooy sa soxna ak say doom doom moom moo tam bokk ci li nga xam ne day dimbali way jur ndax ki am doom dana am ku mu yónni dana am ku koy jàppale dana am ku mu yar dana am ku koy wéttali ila axirihi kon doom te it bu wéyjur faatoo doomay ki nga xam ne bu ko ñaanalee rek ñaan nga direct lay def ci moom moo tax yonent bi saa sallam al waladu saalih min bi abihi doom ju baax paggu teefal baayama kon nag ci loolu lañu ñëw mbokk yi ci laaj yi ñu doon laaj tàmbali ko rek ndax xataayu waxtu wi laaj bu ci nekk danañ ja danañ junj ka laaj la mu laaj tontu ko bu ñu ba ci mujj ga it incha allah bi ñu tàggatoo ak yéen ci ni ñu tàmbale woon ak yéen seen mbokk seen xarit Muxtaar Kébem Cheikh Saliou Mbacké moo ñëwaat di leen siyaare. am na mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy defee passé moom sunu am daf ko def teg ko ci loxol jëkkër ja te tegu ko ca. loxol jigéen ji parce que it gën a lut suñ borom ndax mi ngi ko tudde ab xadul xalaali li leew li ci yàlla gën a bañ lu leew ba nopp yàlla bañ ko nag kon kuy dem ci leew gaat ñàkk pexe la ca yóbbu waaye demoo ci ngir wut xanaa lu naqar yàlla biñ ko tegee ci loxol góor xañ ko jigéen dañoo defe ne góor am na conscience tranquille mën na téye boppam ci yu bari yoo xam ne dana ko mën a muñ ci soxnaam moo tax benn borom xam-xam waxoon wax ju am solo mu ne jigéen bu ñu tegoon ci loxoom passé bis bu set lu toll ne li muy musóoru di musóor boppam mbaa mu koy woddu ab siram dana ko fase jëkkëram kon fase ngoog jigéen yoru ko góor a ko yor dafa am nag passé yoo xam ne yu leer la yu ñu xam la ni lii pase la am na yoo xam ne nag day taxaw taxawaayu pase ni ki dàkkental la mbaa junju mbaa wax bu ñu wax nag wàcc naa la ju wér mba dootu man di yow ju wér mbaa ku la may gura nga yéyal bu wér mbaa taqalikoon na maag yow bu wér moomu passé moom amul laaj mooy mu leer mi nañ kon mu leer mi mooy loo xam ne bi mu ko waxee kenn laajut ne lu mu wax daal nañuy xam la mu wax fa saasa kon soxlawul foofu yéene soxlawul lënkale akuk leeral liñ tudde kinaaya nag mooy dàkkental mooy baat boo xam ne boo ko waxee mën naa tekki passé de waaye mën naa tekki leneen lu dul passé te sax nit ñi miinuñu baat boobu ci passé feneen lañ ko miinoon yaa ko fa jële andi ci lii soo demee ci mazhabul malikiya ak shafiiya nee nañ pasem dakkental balaa mën a tabbi di pase boroom day fekk mu yéene ca pase jógal fii demal ak yu mel noonu ca la bokk ndax bu jógal fii xamuñ fuñ foo bëgg mu jóg fa demal kenn xamul loo bëgg mu foo bëgg mu dem fa yooyu day soxla woo leeral parce que mi nga xam ne day bind nag mbaa muy junj ci loo xam ne dafay tegtale danañ may pasem kuy junj bu fekkee daa munta wax lam junj ca loxoom junj ko ci soxnaam loola des na ko jàppe muy pase ki bind itam lim bind ci kaw kayit des na ko jàppe muy pase kon pase mu wóor mooy loo ne kenn du ko sikk sàkka pasem junj nag mooy loxo ne dañ la laaj li nga wax lu loo ci jublu moo tax ñu ne Malik ak Shafi'i nee na pasem junj moom mooy bi nga xam ne ngay dàkkental rek xamuñu loo bëgg a wax nee duñ ko mën a jàpp muy am passé lu dul dinaa la loo jublu ci sa baat bii nga wax demal ji loo ci jublu nga ne bëgg mu dem seen kër banaa ko jógal fii ci loo ci jublu nga ne ko damaa bëgg mu jóg fii ci sama kër banaa ko ak yu mel noonu kitaaba beeg ishaara bi nag moom moom mooy li nga xam ne ki ta wax dana fosee ci junji ak nu mën a junje baaraamam mbaa mu junje ko ab loxoom ñu xam ne daa fase soxnaam kayit wi ñu bind itam bu téere ba eggee ca kañ koy jox loola dana dana dana dana tabbi di posé kon ki doon laaj passé ñett yooyu moo ci am li ñu li ñu wax mu leer ak li nga xam ne dañ koo dàkkental mu mën a tegtal leneen ak li nga xam dañ koo bind ak li nga xam dañ koo junj bu ci nekk passé la am na mbokk mu laaj su bàyyi génnee ci doomam jumu dog dogoog moom daal daraam dootul daraam dogoo googu bala nga cee ñëw islaam dafa am na mu ko gisee bàyyi balaa sañ génnee doomam këram day fekk mu am fukki at ak juróom-ñett ba na boppam dara waaye gone gu ndaw bàyyi da ko war a yar waaye wuta dugg ci dogoog moom bi ci desit rafetub tarbiya dana tax doom du xalaata dogoog baayam loolu taxawaayu baay la di laaye biir di jubbanti loolu àqi baay la ci doom joo xam ne doom am na ko ci baayam su demee nag ba leneen tax koo mel neneen ba tax doom ja dog baayam moo xam bu góor la moo xam bu jigéen su demee ba war a am soxna gis koo xam ne nandoo nañ ci diine ak jikko moom doom jooju nga xam ne dafa dogoog baayam su boobaa bu ko ko baayam nangu ta may te sart ya mat sëkk xale ba de ku ku tege ci yoon ñu war a mën a jëlante ci diine su boobaa ka nga xam ne moo fa nekkal jullit ya ca réew yi nga xam ne am nañ loola kooku mën naa méngoo pas-pas ba wala buur méngoo pas-pas ba waaye nag balay loolu war na ci bàyyi mu toppatoo doomam xamal ko ni ñuy toppee bàyyi teg ko ci yoonu njub ba ba loolay ñàkk mën a nekk su ko fa doom ja bàyyee nag soxlaatul daray baayam demu yoonam su boobaa nag loolu du tegtale ne du am soxna bu dee jigéen jaa du tegtale ne du am jëkkër déedéet kafaa are la ñuy xool ci diggante ñaar ñi muy bëgg a dencanteel ak diine ak jikko su ca amee ta bàyyi dégager ay responsabilité am dañ ne jullit yi ka fa sës rek moo fa sës ci kilifteef mën naa nekk imam mën naa nekk chef de village mën naa nekk gendarme mën naa nekk leneen ak leneen ba ca procureur général waaye nag de su ko bàyyi ne ko da ngaa doog sa bàyyi doo am jëkk doo doo am jabar loolu de su ko wax. am na mbokk mu laaj ki am ñeenti soxna bàyyi ca kenn. ndax balaa sañ takk jabar day xaar ba idday kële jeex walla day takk jabar saa yu ko neexee soo demee ci yi ak Maalikiya daganal nañ kiy wàcc soxna si ñeenteelam ci posé donte benn yoon la avant iddaam di jeex mën naa takk beneen ñu ne ndax lan ñu ne sëy baa nga jeexee ca talaaq bi nga xam ne baa in la muy demal ma dem su boobaa pasem ba in mënees na cee takkaat seeneen soxna ta fekk idda ja jeexut xanafiya ak xanaabala yi muy imaamul abu xanifa ak imaam xanbal ñoone idda xanaa bala yi ak xanafi yoone yi ñoo ne déedéet idda ji soxna si nekk moom ñeenteel bi day at day am atteb mel ni mi ngi sëy ba tey ndax lan dundub soxna si su amoon doom kuy baayam mi ngi war góor gi ba tey kon su boobaa balay sañ a takk am ñeenteel day fekk idda jeex su ko defee seen diggante jeex tàkk waaye Maalik yoona dañ ne bu dee talaaqul baa in moom sañ naa takkaat keneen donte idée ji jeexut ndax talaaqul baa in talaaqul baa in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar am na mbokk mu laaj nikaaxu sirri te mooy sëy boo xam ne dañ koo takk ba noppi nëbbu ko soo demee ci imaamu Malik daf ne dañ koy firi firi mooy dañuy yàq sëy ba duñ ca xaar posé moo xam sëy naag ndaw sa avant wala ñu sëy après xaaru ci tàbbi ca ndaw sa waaye nikaaxu sirri yi moom lu ñuy fase la moo xam sëy naag ndaw sa moo xam sëyuñ nañ ko firee mooy pas-pas ba rek la ñu daal di yàq sart nañ ci nag bu fekkente ne yàggut lool ba siiw bu fekkee yàgg na ba siiw nag day day mel day génn ci nikaaxu sirri boobu dem ci beneen nikaax lan mooy nikaaxu sirri bokk yi te mooy sëy boo xam ne dañ koy nëbbu mooy loo xam ne jëkkër ja koy takk moo ne leen soxna si may bakka takk bu ko sama soxna yëg mbaa bu ko diw ñoom yëg diw ñoom mooy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jàmm su boobaa boobu sëy du dagan nëbb gi nag day ay nëbbi nëbb yu bokkul su fekkee nëbb gi ci soxna si dong ki ñuy bëgg a takk moo ne nañ ma nëbbal saab sëy benn walla ki koy maye mook soxna si ñuy mayee ak seere ya ñoo ko nëbb waaye jógewul ca jëkkër ja wala ñoom ñaari ñu ñuy bëgg a mayee ñoo juboo kilifa gay bëgg a mayee ca nëbb ga waaye yoonu jëkkër ja nekku fa te biñ koy bëgg a def waxuñu ko woon ñu koy seere dañ ko def ba noppi ñoom ñu gisee ñoom ci seen biir waxtaane loola nga xam ne way seere yi fas nañ ba noppi ñu door a yëg ne ñoom bëgguñu seenub say siiw kon say ba dana wér ndax lañ ca bëggoon lépp am na ni mu amee mooy am nay seere am na kilifa kon du yàqu bu fekkente ne jëkkër ji nag moo demandé nëbb gi nag lañ ne kon boobu nëbb la Malick di bañ xale bu jigéen bi su ko neexee ne nañ ma nëbbal sama sëy kilifa gi ginnaaw am na ay seere ba noppi mook seere ak soxna sax bu leen neexee ñu nëbb seenub sëy ndax sëy bi moom mi ngi wée mi ngi wére ci kilifa gi ak soxna si ak ñi koy seere kon bu ko jëkkër ji nëbbee mooy doon ak nëbb gi nga xam ne dañ koy bañ bu fekkee dañ koo nëbb nag ba fas ko dañ koy firi buñ ko déggee mooy sëy boo xam ne daa mel ne amutoon amul leneen lu cay tege amul leneen luñ cay def dañ koy firi rek mu dal di jeex kon mbokk mi doon laaj sewaaju sirri ci Malick gënalu ko daf koo bañ buñ ko fasee bu waaj a moom dañ koy firi bu waaj a moom itam dañ koy firi am na mbokk mu laajoon ne ñaar ñi dañoo ànd njaaloo ba noppi takkante soo demee ci maliki ya ak xanaa bala ak abu yusuf abu yusuf mi ngi bokk ci xanafi yoon yi dañ ne bu ko xasee ba biiral dëgganul mu koy takk lu dul dafa am doom mutlaqan nag tënkuñu ko moo xam ki ko bëgg a takk mooy kam njaalooloon te kookoo ca gën a yee ca takk ga rawatina kon keneen kon ki ñu njaalool jigéen ju njaalool ba mu ëmb ki ko ëmbal sax daganul mu takk ko rawatina kon ku ko ëmbalul imaam Malik nee na ku njaaloo ak jigéen ci biir njaaloo gi nga takk ko te laablu woo ko laablu woo ko mooy lan ànd moom démb ci njaaloo xëy takk ko tey mu ne mu ne boobu sëy dañ koy firi ba faw kooka nag su boobaa ndaw soosu du doon amul miraas amul passé dañ koy firi laablu gi ñuy wax nag bu fekkee dafa ànd ak moom barki démb bëgg koo takk tey déedéet da koy bàyyi ba mu am benn régal ba mbërëg benn yoon ca la gën a wér liñ jublu ci mbërëg moom mooy dañ ne ndox mu njëkk moom yi nga xam ne daganut lañuy bañ mu dajewaat ci butiitu njurukaay gi ak meneen ndox moo xam ne dafa dagan kon loolu mooy atteb ki nga xam ne dafa ëmbal balaa muy sëñ takk day am doom ba noppi yéen ba nga xam ne dañ sax da cee dolliwaat yeneen juróom-ñeenti weer ak ñetti weeri laablu muy lee di idda ja lee di lee di laablu ko ginnaaw amub doom ja su amul doom nag tam bëgg koo takk te ànd ak moom dem démb da koy bàyyi ba mu régal benn yoon mu takk ko malikiye bi nag dañ ne denc jigéen juy njaaloo dañ koo sib rek dañ koo sib waaye araamut soo demee ci muxtasarul xalil dane kuriha tazwijum ra'atin zaniya sib nañ denc soxna soo xam ne dafay njaaloo ay mashhuratun bi daalika dafa siiwe njaaloo dafa siiwe njaaloo mooy ñëpp xam nañ ne ab kat la soo demee ki taaj ak ikliil ñaar téere yoo xam ne ñu ngi jóge ci Malik Malik nee na laa uhibbu lirrajuli an yatazawaja almar'ata almu'linata bissuu wala arahu xaraaman Malik daf ne bëgguma góor day muy denc soxna soo xam ne dafay fisal lu ñaaw dafay fisal lu ñaaw mooy dafay dox di njaaloo waaye nag dama ne bëgguma ko laa wax waaye gisuma ko muy lu xaraam kon mbokk mi doon laaj ci ki njaaloo door a takk bu fekkee daa njaaloo te bëgg a takk day bàyyi ba mu amum régal mu door a takk ndax dañuy ba ñaari ndox yi daje su fekkee daa njaaloo ba mu ëmb dañuy bàyyi ba mu am doom mu def juróom-ñeenti weer yi edda eh, eh, eh, ak ñetti weeri yi mu door a takk jërëjëf am na mbokk laajoon ñaari seex yu taqaloo ba majeur wara am jëkkër nu ñuy def dañ ne laa tuattiru xaalatul iltisaaq fi ifsaadi alxaqdi mata tawafarat shurutuhu li annaha amrun xaarijun anhu dañ ne ñaari nit ñu taqaloo mënta yàq amul jeexital ci pas-pasub sëy pas-pasub sëy ba lañ ca soxla wooy sart ya daje sart ya daje rek mooy ka koy takk na ko war a takk kañuy takk na na doon ko ñu war a takk na ko jox ak can na am kilifa nañ ko maye na am ay seere na am amuk can ñu ne nag iltisaax bi moom am amrun xaarijun anhu mbir mu dépensé la te dañ ne ad darurat tubixul mahduraat lépp loo xam ne mënoo koo dindi mënoo koo faj da nga koy bàyyi ci nam nekkoon nga xam ne kon ñaari ñu taqaloo kenn ki bu fekkee daa am jëkkër jëkkëram day ñëw sa yëg moom keneen ki amagul jëkkër nekk kuñ mayeegul bis buñ ko mayee moom itam jëkkëram ñëw sa ak moom loolu lañ tuddee amrun xaarijun anhu mooy mbir moo xam ne dépensé na la ama amee su ci benn solution moo tax noonu lañ koy bàyyi kon ñaari seex yu taqaloo bu ca kenn jaree ka ca des jaragut kajar boroom këram da koy fanaan sil ginnaaw sart ya mat na ka ca des itam saa yu amee borom kër borom kër day fanaan si ginnaaw sart ya mat na imam malik radiyallahu anhu wax ne fil muwatta an yaxya bni saidin an amrata binti abdirahman annaha axbarathu an xabibata binti sahlin al ansaari annaha kaanat taxta thabit ibni qaysin ibni shamaashin wa anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja ila subhi fa wajada xabibata binta sahlin inda baabihi fi lxalasi fa qaala sallallahu alayhi wa sallam man haadi fa qaalat ana xabibatu bintu sahlin ya rasula allah qaala maa sha'nuki qaalat laa ana wala thaabitu bnu qaysin fa lammaa jaa zawjuha qaala lahu alayhi salaam haadihi xabibatu bintu sahlin qad dakarat ma shaa allahu an tadkura qaalat xabibatu ya rasul allah kullu ma aataani indi fa qaala alayhi salaam li thabit ibni qaysin xud minha fa axada minha wa jalasat fi ahliha muwatta raqam 1776 Malik nettali na ci euh, radiyallahu anhu ci muwatta jëlee ci ku ñuy wax Yahya ibnu Saïd mu jëlee ci Amrata bint Abdurahman mu ne ku ñuy wax Habibata bint Sahlin ci waa ansaar la bokkoon soxna soosu ki ko yoroon muy ku ñu wax thabit ibni xaysin ibnu shamash yonent bi salaa sallam mas naa génn suba jëm ca jàkka ja fekk soxna soosu yi di xabibata bint sahlin ca buntu këram te fekk yooyu jamono mi ngi miir miir miir miir mooy koo seen da naan ko kooku ndax ñàkk a leer sallallahu alayhi wa ne ko kii kan la mu ne ko man a xabibatu bintu sahlin mu ne ko looy def fii lan la mu ne ko bis ni ki tey dootu man di saabitu nu xaysin maanaam dootu man ak saa jëkkër ah bi jëkkër ji ñëwee saabit yonent bi saa ne ko ah xabibatu da ñëw na fii wax na fi lu baree baree baree bari xabib xabibata ne ko yow yonent bi lépp lu ma joxoon day mi ngi fi man mooy mën naa ko delloo yonent bi salaa salaam daal di wax saabit ne ko jëlal lim la joxoon saabit daal di koy jël ndaw sa daal di ñibbi ca ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddee alxolo mooy summikoo waxtaan ba jubook moom ci loo xam ne danga koy delloowaat mbooleem li li nga xam ne joxoon na la ko tam may la sabaat kooku waaye nag su boobaa bokk yi jëkkër ji du ku ñu ku ñu forcé dañoo sopp ci jëkkër ja bu ndaw si joxee doxee ci yoon wu mel nii mu nangul ko ko loolu rekk la waaye du force ci jëkkër ji ne ko il faut wala benn xaakim wala benn atekat ne jëkkër ji da ngay nangu kon loolu mooy xolon lenn la ci passé yi kañ la ko soxna si di sañ def mooy bu demee ba nga xam ne moom xolam moyetu ko mu ne fi te ak nekkam fi amatul benn njariñ muñ na muñ jéem-jéem sottiwut su boobaa mën naa delloowaat jëkkër ja lam ko joxoon mu jaradul ax nag su ko jëlee képp nag passé ma tàbbi na ak doonte tudd ko ne ko xalaatu tukki may naa la sabaat wala wala wala wàcc naa la moo tax Malik ne woon ki nga xam ne loolu lañ tudd fidya mooy fa in xiftumoo allaa yuqiima xuduud allahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya boobu mooy nga jox ko loo xam ne danga ci ciy jot sa bopp mu mel ne da ngeen a summi koo ndax bu fàtte ne sëy mbubb mu ñu soloon la hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ba mu ko tëddee libaas nag ci la nangoo ñu summi mbu mi mooy xol mooy futti mooy pasem summi Malik nee na nag soxna su noonu bu ko jëkkër ja defee noonu balaa sañu sëyeete ak moom beneen sëy bu bees la soxna sëy sëy door a saña sëy ak dellusiwaat ci jëkkëram jooju xolox boobu leen la ci teqal yi nga xam ne bu amee te jëkkër ja d'accord ca dara nekku ca su ca waaye nag kañ la xolox di am xolox mi nga am ci jigéen ji gis ne nekkam fii arrangé wu ko te am na lum jox góor ga waaye su fekkee góor gi moo yore jikko yu bon di tux tux mu bon di naan def yu bon su boobaa bu ko ne dañuy xolon islaam nanguwul xolon boobu wala taaduluhunna li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna même su xolon woon ak moom ci melokaanu jëkkëram wu bon dañ koy jàppee am passé nangu alal jooju nga xam ne jëkkëram jëloon na ko ci moom della war ko ci jigéen ji kon foofu jigéen ji sañ na fee def xolon lépp rek maa ngi ci yoonu nu muy def ba tas su fekkente ne nag xolon amut jëkkër ji la kenn mënut nekkal ndax aw melokaanam su booba ndaw si day delluwaat ci fosé mooy lan na ko ñaan baat te wax illa yi nga xam ne moom la dajale ba war koo ñaan baat su boobaa itam nag fi mu koy waxee bu islam taxaweek bu fekkee laïcité bi laag mm, wala mu nekk alxukmul orfi muy luñ baaxoo def ca démb duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkkër ji li nga ci wax dëgg la lu dul dafa am ay seere yoo xam ne dëkk nañ fa gis ko tey ñu maandu wala muy ñoo xam ne dañ leen di chargé mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne lii ndaw si wax ci jëkkëram ji lu wér la su boobaa xaakim te mooy attekat ba sañ naa may ndaw sa baat su fekkee jëkkër ji dafa bañ kon loolu rek moo fi nekk ci tasiin benn bi ndaw si daa gis jëkkëram lu ko neexul fase la ndaw si daa mënatul mu muñal jëkkëram ndax xolam a ko attanul xol la bu fekkee mën naa nekk ndaw si bu fekkee nag xoloo boobu nag lañ ne du am benn yoon boo xam ne góor gi dañ ko ciy forcé wala benn xaakim benn attekat ne ko fan foog nga xoloo ak sa jabar ji dañoo sopp ci góor gi rek boo ko ndaw si naa la jox dara mun na jël dara loolee ah daal koy may baatam ni ko yonent bi saa gaarale woon xays ne ko jëlal lii mu jël loolu kon nangam jël nangoo jël loolu moo tabal passé ma su fekkee jikko yi ñaaw yi te góor gi la nag sañ naa dem ci yoon yoon nag ma nga tàmbalee ca waa dëkkub àll ba lañ defu yoon moo xam dañuy daje ca jàkka ja moo xam dañuy daje ca pénc ma moo xam dañuy daje ca kër gu mag bu dee waa ndakaaroo wala waa dëkku teeru rekk laa bëgg a wax fañ jàpp ne foofa mooy seen dajeewukaay bi nga xam ne bu fa dajee luñ fa fas mu mën a fasu luñ fa fecciku mën a fecciku su boobaa loola mooy yoon ca ñoom ñu waxtaane ko moo tax ne fabxasu xakaman min ahlihi wa xakman min ahliha rek la wax nañ yebal fee ñennat yebal fii ñenn in yurida islaahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëggee defaroo yàlla dana defaree ci diggante bi kon nag pasem tribunal bi li muy tegtal rek mooy teqlikoo nañ pasem ñi ci àll bi di seereet li muy tegtale mooy teqlikoo nañ kon teqlikoo googu ba xasee ba am ci condition yu wér ndax ànd mënatu la am kon su boobaa moo passé day tàbbi am passé la malikiya ñoom sax dañoo sart gërëm look boroom kër bi ci nangu ne nangu na maa jël lii tabaay la moo tax ñu ne soxna si jëkkëram kenn ci lii tax xolu mën am ci la bokk mooy lan ginnaaw jëkkër ji moom mi bëgg may soxnaam baatam te soxna soxna sa jox ko dara day nekk mu kàllaf day nekk ko am xel day nekk jot gàpp mu kàllaf kon loolu loolu lay xamal ne la kon jëkkër jee ca moom lañ aj pase ma su fekkonte ne du mag mbaa amatum xel kon passé ma du mën a am moo tax ñu ne kon nag balaa passé mu summi kontee mën a am jëkkër ja da cay d'accord bi ki des dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul mooy dañuy nekk ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga defal ma lii mu ne ko boo ma defee boo ma joxee lii ma defal la lii su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ja du ca bokk kon du jar ijab ak qabul moo tax xalil ne woon arkaanul xul'i arbaa ñeent la woon ne mooy atay posé jëkkër day am nekk mu kàllaf ku jot gàpp gàpp mu kàllaf tey moom xel siixa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër je su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba ba ca des <clears throat> mooy boppam mi mu koy bàyyeel ne ko mën ngaa dem ak sa bopp loolu mooy ñeenteel ba kon yooyu diggante diggante jëkkër ak jabar ñooy def xolon mooy summi te fekk booba jëkkër ja d'accord ca moo tax ñu ne bu jëkkër ji d'accordut li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcer sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax waaye amul benn xaakim kenn ku koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu kon jëkkër ji bu amul benn sikk sëy bi amul benn sikk ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne mënut a nekkatee ak moom buy xolon mooy delloowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam loolu day fekk jëkkër ja d'accord ca waaye kenn du ko ca bokk yi moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci passé moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon la ca wàllu jigéen mooy nangoo joxe alal la ca wàllu góor mooy mu d'accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox loolu mooy jigéen ja moo ko taamu bu fekkee lor la nag te mooy lan dafa am leneen lu xew kon fase lay doon te du doon lu ñuy summi te mooy lan jëkkër ja day def yu bon mënta yor mënta mënta denc mën maanaam mënta sëy ak yu mel noonu kon fase lay doon moo xam ne du yar xolom moo tax ñu ne kon maliki yoo nee lu fa jigéen ji mën a wax nag ca jataay ba ñuy attee wala ba ñuy lijjantee mbir ya lu mën a wér mukk li fekk dafa àndut ay dafa ànd ak seere kon jigéen ji lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere loolu doo a mën a wéy kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wet yëpp jaar na fa ñi war a defare ñëpp defaree nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba mun ta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul raj yu bu xasee ba wàcc rek wàcc na ko ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj soxna si daa bëgg a tas ci boroom këram te boroom kër bi lànk na ne ko duma la may baat lu ci islaam wax bu ci islaam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sariya da koo àtteel nu muy def ba mën a tas Malik ak Shafii ak Hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyi ko ci condition yi muy bëgg a wax mooy mën naa ñaan mën baatam ci bu fekkee jëkkëram daa amut dara mënu koo dundal mutlaqan nag lañ wax bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam góor gi dem wuti mu nangoo doon soxnaam saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fayiloo lam fa lekkoon ak lam fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog mu daal xone wala tumsikuhunna diraaran li taatadu kon ictidaa u boobu te mooy jalgate gi adamul infaq da cee bokk ñàkk a sa jëkkër sa sa jabar jalgate la jalgate mooy tooñ la niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko waaye jigéen ji moom mënuta muñ boroom këram tukki kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax moom diir bu yàgg nag wala mu koy forcé di ko def loo yoo xam ne yu araam la ni ki weeru koor mu ko ciy dogloo ak yu mel noonu wala mu koy xañ ak topp yàlla yooyu yëpp kon bu dajee jigéen ji sañ naa ñëw ñaan baat ndax ñaaw jikko ga ñaaw jikko ja ca góor ga la googu ñaan baat nag bu ko ci góor gi mayee baat ku ñaan baat ak ku tas rekk la kooku sañ na fee am xaqi ñaan loolu bi ki des sañ naa toog ba yàgg moom day lii ñu wax yépp amut góor gi man na am na waaye jigéen ji ci boppam moo doyal ci góor gi soxlawu ko bëgg ko bokk na ci sax ngant yi ma doon wax léegi ñàkk mën a sëy ak yu baree bari feebar bu metti boo xam ne day foñloo yooyu yëpp dana tax jigéen a am aqi ñaan baat waaye bu lu lépp dàqoo nag amut nañ xam ne yonent bi salaa sallam waxoon na benn xadis bu daw yaram te mooy nee na fa ayuma mraatin saalat zawjaha talaaq fi gayri ma basin faqad xaramaha allahu alayha aljanna kon di dox di ñaan baat te tegoo ko fenn amoo benn ngant jëkkër ji amul benn ngant amul benn jikko ju ñaaw ju seen diggante danga ngaa bëgg liibar rek yonent bi salaa salaam nee nag kooku yàlla araamal na ci jikk jigéen ju mel noonu mu tàbbi aljanna bu ngant amee nag te mooy jigéen ji bëggatul góor gi ci xolam mënatu ñoo ànd na ne fii kat dafay gën a sànku di gën a def lu yàlla tere foofu jigéen ji am na xaqi ne boroom këram dama bëggoon delloo la la nga defoon ci man te nga may ma sama baat delloo ga nag nii lay tëddee bokk yi dana ko delloo can ga ku fase yaa war a jox fu mu dëkk yaa war a jox mu lekk yooyu yëpp mu ne ko baal naa la ko ngir yàlla nga bàyyi ma ma dem sama yoon su boobaa ci xaala bu mel noonu sañ na kon jox ko loolee nga xam ne moom la ko joxoon su ko defee mu may ko baatam mu demu yoonam soo demee ci Malik ki mu wappo xam naa dañ koy dagg ngir bañ wax ji gudd xam naa mbokk yi dañ doon ubbi jataay bi rek di ci barkeelu euh, di yemeeli foofu laaj yi ëpp na fi nag ëpp na ko lool ëpp na ko lool waaye incha allahu rabbi ci fan yii di ñëw danañ ko gën a waajalaat gën a yaatal tontu yi li ñu wax nii nag lu ci xaw a desee leerit danañ bàyyi ligne bi tuuti ñi bëgg a dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu leeral leen ko seen mbokk seen xarit Mokhtar Kébé Cheikh Salim Mbokk moo ñu moo doon ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllu talaaq mi nga xam ne nikaax ko waroon jiitu waaye question yi ci bare bare dafa dafa far jëm ci teqalikoo gi te waxul ci ànd gi. wasalaamaaleykum wa rahmatullah